asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci ramadan bi ñu nekk di ñaan sunu boroom subhanahu wa taala li nga xam ne feeñal na ko ci yërmandeem ak itam li nga xam ne feeñal na ko ci njëggalam ak goreelu ci sawara mu defal ñu ko ñun ñëpp gën a dooleen lawal yërmande bu baax a baax ci noonu jéggal ñu suñu rëcc rëcc musulñ ci sawara noonu nga xam ne ni la séddale weer wi di ñaan lépp loo xam ne def nañ ko ci jëf ju baax walla ñu wax ko wala ñu yéene ko sunu boroom nangul ñu ko te fulal ñu ko ci mbaaxam ak yërmandeem suñu mbokki julli yi ñuy jiitu yëpp ñu ñaan sunu borom mu lawal ci ñoom yërmandeem ak njëggalam incha allahu taala ñuy ñëw rek ngir def ak leeral ci li nga xam ne mooy zakatul fitri muy muurum koor leral yu gàtt rek ngir wane ki nga xam ne moom la muurum koor war ci mu war koo génnee ak ci jan jamono la ko war ak ci lan la koy génnee ak nu muy toll ak itam bu ko génnee ñan ñooy ñi nga xam ne ñoom la ko war a jox njëkk loolu ñu fàttali rek ne njàngat mi nga xam ne am nañ ko ci zakatul fitri muy sikkama boo xam ne mën nañu wax ne bokk na ci li nga li nga xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko ci noonu li nga xam ne moom mooy aydul fitri muy bisu korite boobu dafa nekk bisu feet bisu mbégte ci jullit ñi xam ngeen ne weer wépp dañoo nekkoon ci di ko woor bàyyi li nga xam ne mooy lekk ak naan ci suñuy bëccëg ci ndigalul suñu borom subhaanahu wa taala muy loo xam ne suñu borom xàjjaliwu ci ki am ak ki woomal agniyaaw yi ak fuqaraaw yi ñooyam àtt ci loolu ñun ñëpp rek ñoo maase woon ci di woor bi liggéey boobu matee boroom borom sosaleen ñu ci lii nga xam ne moom aydul fitri muy bis boo xam ne bisu teraanga la bisu mbégte la muy bis boo xam ne it ñun jullit ñëpp ñoo ko bokk muy ñu am muy ñi nga xam ne itam dañoo ñëw doole lii nga xam ne mooy zakatul fitri nag bu ci amutoon danga fekk jullit boo xam ne dana xëy yu bari du ko mën a taxawee ci ay warteefam ci yoo xam ne nawleem yépp danañu ko def ci bis bii xam ngeen bu baax ne bis la boo xam ne baaxoon nañ ci di yeesal ay koddaay ci nun ñu yére yu yees di ci soppi itam li nga xam ne mooy suñuy togg di ci gën a feeñal mbégte bu baax a baax loolu nag waaye iidul fitri ci lañu koy def zakatul fitri nag di loo xam ne day jox ndimbal ñi néew doole ban mën cee maase ñi nga xam ne ñoo woomal ba nga xam ne bis boobu mën nga cee bañ a xam ne ki barile wala ki le ci seenu togg tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle ne bis boobu nañ ciy génne li nga xam ne mooy zakatul fitri di ko jox néew doole yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ngir ñoom ñu mën a am aw ñam wu leen doy ni nga xam ne jullit ñëpp noonu lañ koy defe mu sax ci ay ahadis yu bari te wér yoo xam ne leer na ci ne yonent bi alayhi moo ko digle woon te itam daan na ko def ابن عباس عندنا حديث ابن عمر عندنا حديث أبي سعيد عندنا حديث عن ينين عن ينين أما صحن كوي جيما دكي القرآن باي قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى داي جنجلو مل نون كي خمنا دفل الزكاة الفطري بولتي سابال يالا تي بس بي ci tasbihaat yooyu julli itam li nga xam ne mooy julli gi suñ boroom dana ko jox ak texe xañ na yooyu ci yàlla sosale nag mën naa tax ñu am ñu ci am déggin woow waaye daal li gën a wóor mooy alquran moom gisuñ ci aaya boo xam ne daa dikk ci lu leer nañ ci ne zakatul fitri rek moo ko tax a jóg waaye ki ñu ko digal day koo xam ne lu ñu digal rek dañ koy jàppee ne lu ñu suñ borom subhanahu wa taala digal ndax yàlla moo nañu wa ma aataakum rasul fa qusuuh lépp lu mu ñu indil rek nañu jël bu dee lu ñuy jëfe ñu jëfe ko te xam ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxin yuha du wax mukk ci bànneexu bakkanam te lu mu digal rek lu ko suñ borom digal lay doon te bi mu ko diglee itam ñun ñëpp rek maasa nañu gis li nga xam ne mooy sono sim am dimbandikoo ki nga xam ne way diw doole yi danañ ko dimbandikoo ci bis bi ak itam njëriñ li nga xam ne amal na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe li nga xam ne mooy zakatul fitri ndax bu dee xadisu ibnu abbas dégg nga mu ne yeneen bi alayhi salaatu wasalaam moo farataal ci nun zakatul fitri mu nekk loo xam ne tuxaratan lisaa'il min allahi wa rafas wa tuumatan lil masakin yàlla farataal yonent bi moo farataal fi nun zakatul fitri mu nekk tam loo xam ne day laabal aji woor ji ci ay caaxaanam ak ay sew sewam yoo xam ne mën noonu na koo gaar ci biir koor gi ki nga xam ne moo doon woor ay rëcc rëccam ak i càgganteem yi ko doon dab ci biir koor gi su defee li nga xam ne mooy zakatul fitri sunu borom dana ko laabal ci yooyu yëpp jéggal ko ko te dana nekk ñoom boo xam ne dana amal njariñ miskin biñ koy jox kon ñaar yooyu yëpp daje na ci amal na njariñ ki koy joxe amal njariñ ki mu koy jox kon nag ngir gàttal rek ñu jàll ci zakatul fitri ci jan jamono mooy jamono ji nga xam ne ci lay war jan jamono la war am na sax ak wuute am na ñu jàpp ne ci suba ji ci bisub korité bi ci lay war am ñu ne warteefu zakatul fitri mi ngi ci di jant bi soo ba weer wi feeñ wax boobu nag lañu gën a jàpp bu ñu séentoo weer wi ba gis ko rek ba ne weer wi feeñ na diggante boobu jant bi so lëndëm gi dugg si diggante boobu mooy bi nga xam ne ci la zakatul fitri di war warte foofu bu dugg see itam ab diir rek la waaye tekkiwul ne lépp guddi gi la weer wi feeñee ba jant bi so rek ab as ndiir la rek soo xam ne ci la warteef yi tàbbi nga xam ne la ko jiitu waragutoon diir boobu itam bu jàllee war gadam daal day teggi ko am nag ñu ko yóbbu ca waxtu suba wa kon wuute googu mooy li ci am waaye liñ gën a jàpp ma rek mooy fii weeru feeñee jant bi so diir boobu nga xam ne ci la war itam boroom xam-xam yi dañ ci indi ay leeral di wax ne kon foofu warees ne fee bàyyi xel ki ci juddu dolli ku ci sa njaboot wala ku ci faatoon daal di génn àdduna wala koo dolli ci say soxna ñu daal di koy may soxna wala koo xam ne da koo ko génnee ci say soxna daal di tàqalikoo ak moom ba ci sax ku ci dugg ci lislaam ku ci door a tuub di dugg ci lislaam ak koo xam ne diggante boobu fekkoon na tuubagul dugg ci lislaam wala jaam boo xam ne dafa dugg si ci say loxo nga moom ko moom ko yees wala koo xam ne da cee génn ci say loxo dem ci geneen moomeel kon diggante boobu muurum war di war ci ngay xool sa bopp xool ba xam bokk nga ci ñum war wala waru la bu fekkee am nga ñoo xam ne yaa leen ko war a génneel tam nga daal di mën a xam ñooy ñan lañ muy la aju ci say soxna wala ci say njaboot wala jaam boobu moomoon wala yu mel noonu ndax jamono bi muy war ki nga xam ne fekkul muy sa soxna ci ginnaaw ba lañ la ko door a may kooku waroo koo génneel ki nga xam ne fekk gutoon muy sa doom ci ginnaaw ba la door a judd ba tey boor koo génneel ki nga xam ne jaam la boo xam ne moomu ko woon ci ginnaaw ba nga koy door a moom it ba tey waroo koo génneel ak koo xam ne ak koo xam ne njëkk muy war la nekkoon ci say loxo laataa waxtu dugg si mu génn ci say loxo koo xam ne laataa jant bi so jaam la boo moomoon jaay nga ko wala sa njaboot la bu doon dund faatu na wala soxna solo yoroon wàcc nga ko nga xam ne laataa waxtu warte dugg génn ci say loxo kooku itam du bokk ci ña nga xam ne rek leen koy génne waaleel loolu jàllee nga ñëw ci bim la waree ana ñan ñooy ñi nga xam ne itam daa war a ngir nga génneel leen ko te loolu mooy sa soxna yaa ko ko war a génneel su doon jamonoy jaam di amee itam sab jaam yaa koy génneel bu dee say doom nag muy doom ju góor wala doom ji jigéen génne gi am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem sa doom ju góor su xasee kàllafe di waxambaane génneel ko ko waratu la su ko amee moo ko war a génneel boppam su ko amul nag mën nga koo fàggul yow rek génneel ko ko waaye doon lu la war sa doom ji jigéen it soo ko xasee may boroom kër ba jébbal ko ko it waratu la donte daa nekk sa biir kër kon say doom bim lay war ci ñoom mooy bu dee góor la feeg muy kàllafe bu dee jigéen la feeg nga koy jox boroom kër ba jébbal ko ko bu dee lu mel ne say waajur sa ndey ak sa baay itam moom mi ngi aju rekk ci ñu ñàkk ko te nga man ko say waajur bu fekkee mënuñu ko te nga man ko yaa leen koy génneel waaye nag su fekkee mën nañ ko ñoom ñoo koy génneel seen bopp su fekkee mënuñ ko waaye yow itam mënoo ko mën a génneel leen ko it kon sa bopp mi nga mën a génneel rek ngay génne kon ñi nga ko war a génneel mooy ñooñu léeg nag nit nekk ci këram yoraale fa ay rakkam ak i magam wala ay donga mbooloo mu bari ne fa nga yor leen di leen dundal waaye nag taxul nag mu tekki na ñoom ñëpp yaa leen di génneel li nga xam ne mooy zakatul fitri waaw maanaam ñaa ña la ko yoon sant rek mooy sa soxna ak say doom bu fekkee ay kàllifeegun ak say waajur buñ ko mënut te nga mën ko ak sa jëmmi bopp kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom nga koy génneel keneen ku dul ñoom nag mën ngaa coobare war génneel ko ngir fàggul ko tiyaaba waaye nag yoon gàllu ko ginnaaw loolu itam la ci war a topp mooy ci lan lañ koy génnee ci lan lañ koy génnee bu dee ci mazhabu imam malik mazhabu imam malik bi ñu nekk danañu lim lu mat juróom-ñeenti mbir yoo xam ne wax nañ ne yooyu ci lañ ko war di génnee ndax ahadis yi ci rot boo leen xoolee dangay ngay fekk yooyu ci seen biir bu dee xadis ibnu omar bi da nga fekk ci biiram wax ci tamr wax shaair bu dee xadis bi nga xam ne moom la abi said indi dana indi tamr ak shaair boobu ba indi raisin muy zabil ak aqatil boobu mu waxoon muy ñëw pëndax wala nga ne formance ba biñ ko toppee daal indi nañ ci juróom-ñeenti mbir yoo xam ne wax nañ ne ci lañ war a génne li nga xam ne mooy zakatul fitri lu mel ne xamu sha'ir sultu ak durratu ak urs duxlu ak tamr ak zabin ak li nga xam ne mooy aqatil muy pëndaxu meew bu dee xamoo ak chanre ak sultu nag daanaka ay xeeti pepp lañu ab duróotu nag mooy mboq ruzu mooy li nga xam ne mooy ceeb ak tàndarma ak raisin yu mel noonu mooy yi nga xam ne dañoo wax ne ci li ñu génnee zakatul fitri muy asakay muurum koor loo tax ñu koy génnee ci yooyu jamono bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di digle di ñaareelu at ci gàddaay gi muy at mi nga xam ne ci lañuy farataal weeru koor mooy at moomu ñu leen defi xasootu badrin ñaareelu at ci gàddaay ci madina foofu la ko yonent bi farataale ci jullit ñi booba it gis na ni yii moo nekkoon yi nga xam ne moom lañ baaxu woon di dunde mooy yi ñu xamoon ci ab dund daan ko dunde moo tax boroom xam-xam yi di wax ni ñu ngi koy génnee ci dëkk bu nekk day xool lañ ëpp baaxoo dunde ñu génnee ko ci loola dëkk bu nekk mën naa xool lañ ëpp baaxoo dunde rek ñu génnee ko ci loola moo tax bu dee fii ñun ci suñ jamono jii nii fii ñu nekk ci Sénégal mel na ne lii nga xam ne mooy urge muy ceeb mel na ne moom lañ fi ëpp baaxoo dunde kon day mel ne ku ko ci mën a génnee ci ceeb mooy gën yeneen qualité yooyu ci des donte que sax dugub muy pepp tudd na ko foofu te des na ko dund fii ndax des na ci faral di def cere ak yeneen ak yeneen waaye mel na ne rek ceeba ko gën a fës daal ci jamono ji ñu toll nii xëy na ay at ginnaaw nag mel na ni dugub lañ ëppoon a baax dunde ndax booba ceeb ay benn benn rekk ko daan am muy borom barke yi waaye mel na ne suñu borom yaatal na ko ba mel na ne fi mu nekk nii mën nañoo wax ne fii nii ci Sénégal ceeb mooy li ëpp a baax a dunde kon ci gàttal ba ñu dugg ci détails yi mën nañ koo tànn wax ne mel na ni ku ko ci man mooy gën su ko tëlee door a wàcc ci li nga xam ne moom mooy dugub ba ñuy ñëwee ci mboq wi mel noonu ñu ñëw ci nan lay toll nan lay toll mooy ñeenti mudd ñeenti mudd moom lañ tollale muy saax saax waaw xadis ibnu omar bi daf ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam farataal na ci ñun zakat al fitri min ramadan ala annas ne saaxan min tamrin aw saaxan min shairin xan kulli xurrin aw abdin dakaran la unsa saax nag mooy ñeenti mudd kon lan mooy mudd mudd day mooy ñeenti mudd mooy masalan muddum yenente bi nag la wax ci ay loxoom waaye buñ dee wax mudd kon dañ naan rek mooy ku fekkoon ak paan goo xam ne dañ ca def pepp ba mu fees nga jël sa ñaari loxo roof ko ci biir pen ma ca biir daal di tibb daal di yëkkati sa ñaari loxo lam lam yanu ca dugub ja loolu mooy benn mudd waaye nag ci loxoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne loxoy yonent bi nu mu toll ñu ne loxoy yonent bi day yonent bi day koo xam ne dañoo à peu près mbiram ci tawasut mooy lu digg doomu yonent bi dañ ko nattale muy koo xam ne daraam ëppul daraam yéesul kon moo tax ñu wax lu digg doomu ñu ne kon képp koo xam ne ay loxoom rëyut lool lool tuutiwut lool loxo yu yam daal la yor tuutiwut lool rëyut lool su fekkoon paanub dugub mu roof ci ñaari loxoom tibb daal di yëkkati ci kaw laay loxoom taaw daal loolu mooy mudd ñu ne kon loolu boo ko defee ñeenti yoon loolu mooy saax boo ko defee ñeenti yoon mooy saax kon ñu ne saax moom lan lañ ko mën a tolloo leel ci luñ mën a xam lan lañ mën a tolloo leeg saax ci luñ mën a xam kon bu ma ñëwee ci masalan ci ceeb wala dugub biñ gën a xam fii natt ko ci ndax buñ ne woon tey lii mooy pot mudd mudd buñ natt la yi pot boobee nga xam ne moom lañ wax ne Zayd ibnul Xaaris moom la jëloon tëggaat ko natt ci muddum yonente bi alayhi salaatu wasalaam bañ xam ne mooy potam bañ gëstoo ba xam ne pot boobu potam moom ba mu daan natti mudd ñu xayma pot booba ba xool nu mu war a toll ba pot booba ñu def ko nattukaay ci lu mel noonu nga xam ne pot booba day mel ne boo ci nattee ñeenti pot mooy saa loolu bu ñuy xool ci boroom xam-xam yi ci luñ ko à peu ci jamono ji ñu mën koo tolloole ak moom ñenn ñi dañ koo indi ci ñaari kilo ñenn ñi yóbbu ko ci ñaari kilo ak genn waa liibar ñenn ñi yóbbu ko ci ñaari kilo ak liibar ba am na sax ñu wax ñaari kilo ak lu ëpp liibar muy ñett kilo yu manqué kon borom xam-xam yi wuute nañ ci pot boobu nan la toll dëgg-dëgg buñ ko doon natt ci ay kilo am na ñu wax ñaari kilo yam ci am ñu ne ñaari kilo ak liibar am ñu ne ñaari kilo ak genn waa liibar wax ne ñetti kilo yu manqué ñu gis ne kon wuute googu am na ci mel na ne buñ jëlee ñaari kilo ak liibar dana digg doomu ñaari kilo ak liibar wala ñaari kilo genn waa liibar waaw buñ toppee njàngalem sëriñ Chouaïb Mbacke day mel ne moom ñaari kilo ak liibar la andi kon day mel nattale boobu mënoon nañ koo jël wax ne rek ñaari kilo ak liibar mën nañ ko def muy saax bopp bu nekk ñaari kilo la doon ak liibar su fekkee da ko war a génne yow ak sa soxna kon day nekk maanaam juróomi kilo juróomi kilo kon loolu nattale buñ mën a jàpp na muy ñaari kilo ak liibar bopp bu nekk muy jëmm ju nekk ñaari kilo ak liibar bu dee fii ñu génnee ko ci ceeb ku ko ci tële door a ñëw ci li nga xam ne moom mooy dugub buñ jógee loolu it ci loolu ñu jàll ci nag léegi ndax mën nañ koo génnee ci xaalis wala mënee su ko génnee ci xaalis loolu tam aajowoo ay leeral donte kon dañ koo xaaj ñaari xaaj rek ci bañ mu gudd ba mu ëpp waaye danañu dellusiwaat ci xaaj ñaareel bi mottali ko leeral li ci des insha allahu taala bismillah kon ñu dellu siwaat ci li def ci jataay bi eggale li nga xam ne moo jimoon ci azaka yi muurum koor su ko tëlee door a wàcc ci li nga xam ne moom mooy dugub ba ni muy ñëwee ci mboq yu mel noonu ñu ñëw ci nan lay toll nan lay toll mooy ñeenti mudd ñeenti mudd moom lañ tollale muy saax saax waaw xadisu ibnu omar bi daf ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam faratal na ci ñun zakat al fitri min ramadan ala annas ne saaxan min tamrin aw saaxan min shairin xan kulli xurrin aw abdin dakaran la unsa saax nag mooy ñeenti mudd kon lan mooy mudd mudd day mooy ñeenti mudd mooy masalan muddum yenente bi nag la wax ci ay loxoom waaye buñ dee wax mudd kon dañ naan rek mooy ku fekkoon ak paan goo xam ne dañ caa def pepp ba mu fees nga jël sa ñaari loxo roof ko ci biir ma ca biir daal di tibb daal di yëkkati sa ñaari loxo lam lam yànn ca dugub ja loolu mooy benn mudd waaye nag ci loxoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne loxoy yonent bi ñun nu mu toll ñu ne loxoy yonent bi day yonent bi day koo xam ne dañoo àpp pare mbiram ci tawasut mooy lu digg doomu yonent bi dañ ko nattale muy koo xam ne daraam ëppul daraam yéesul kon moo tax ñu wax lu digg doomu ñu ne kon képp koo xam ne ay loxoom rëyut lool lool tuutiwut lool loxo yu yem daal la yor tuutiwut lool rëyut lool su fekkoon paanuk dugub mu roof ci ñaari loxoom tibb daal di yëkkati ci kaw laay loxoom taaw daal loolu mooy mudd ñu ne kon loolu boo ko defee ñeenti yoon loolu mooy saax boo ko defee ñeenti yoon mooy saax kon ñu ne saax moom lan lañ ko mën a tolloo leel ci luñ mën a xam loolu lañ mën a tolloo nekk saax ci luñ mën a xam kon bu ma ñëwee ci masalan ci ceeb walla dugub biñ gën a xam fii natt ko ci ndax buñ ne woon tey lii mooy pot mudd mudd buñ natt la yi pot boobee nga xam ne moom lañ wax ne Zayd ibnul Xaaris moom la jëloon tëggaat ko natt ci muddum yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ xam ne mooy potam bañ gëstoo ba xam ne pot boobu potam moom ba mu daan natti mudd ñu xayma pot booba ba xool lu mu war a toll ba pot booba ñu def ko nattukaay ci lu mel noonu nga xam ne pot booba day mel ne boo ci nattee ñeenti pot mooy saa loolu bu ñuy xool ci boroom xam-xam yi ci luñ ko à peu ci jamono ji ñu mën koo tolloole ak moom ñenn ñi dañ ko indi ci ñaari kilo ñenn ñi yóbbu ko ci ñaari kilo ak genn waa libar ñenn ñi yóbbu ko ci ñaari kilo ak libar ba am na sax ñu wax ñaari kilo ak lu ëpp libar muy ñett kilo yu manqué kon borom xam-xam yi wuute nañ ci pot boobu nan la toll dëgg-dëgg buñ ko doon natt ci ay kilo am na ñu wax ñaari kilo yam ci am ñu ne ñaari kilo ak liibar am ñu ne ñaari kilo ak genn waa am ñu wax ne ñetti kilo yu manqué ñu gis ne kon wuute googu am na ci mel na ne buñ jëlee ñaari kilo ak liibar dana digg doomu ñaari kilo ak liibar wala ñaari kilo genn waa liibar waaw buñ toppee njàngalem sëriñ Chouaïb Mbacke day mel na moom ñaari kilo ak liibar la andi kon day mel nattale boobu mënoon nañ koo jël wax ne rek ñaari kilo ak liibar mën nañ koo def muy saax bopp bu nekk ñaari kilo lay doon ak liibar su fekkee da ko war a génne yow ak sa soxna kon day nekk maanaam juróomi kilo juróomi kilo kon loolu nattale buñ mën a jàpp la muy ñaari kilo ak liibar bopp mu nekk muy jëmm ju nekk ñaari kilo ak liibar bu dee fii ñu génnee ko ci ceeb ku ko ci tële door a ñëw ci li nga xam ne moom mooy dugub buñ jógee loolu it ci loolu ñu jàll ci nag léegi ndax mën nañ koo génnee ci xaalis wala mënee su koo génnee ci xaalis loolu tam aajowoo ay leeral donte bari na ay détails duñ dugg ci détails yu xóotu xóot waaye des na ci wax rek luñ mën a jàpp ndax ñi wax ne ñu koo génnee ci xaalis ñoom dañoo gis na rek yonent bi ba fii dund di ko wax booba xaalis amoon na te taxutoon mu ne nañ ko génnee ci xaalis kon dañ ko war a bàyyi rek ci la waxoon muy xeet yi mu wax nii nga xam ne ay ñam la yu ñu jëfandikoo ba tax na bu dee mazhabu imaamu Malik bi ñu nekk nii noonu am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañuy jàpp ne sip nañu génnee ko ci xaalis buñ nee nag dañoo sip ñu génnee ko ci xaalis kon nañ jël àtteeb sit xool mooy lan su ne lii sib nañ ko loolu mooy lan lu ñu sit ak lu ñu sopp ñoo jaakaarloo lu ñu sopp mooy lan lu ñu sib mooy lan lu ñu sib mooy loo xam ne dañ naan lii de nga bañ koo defee nii moo ñu gënal taamuwuñ nga defee ko nii maanaam nii taamuwuñ nga defee ko nii nga bañ ko nee defee moo ñu gënal mel na ñu ne taamuñ nga joxe ko ci xaalis nga bañ koo joxe ci xaalis moo ñu gënal waaye nag teewul boo ko boo ko defee masalan boo ko joxee ci xaalis teewul wér na def nga li nga xam ne mooy zakatul fitri te it amoo ci benn bàkkaar maanaam bu ne lii dañoo sépp ku ko def soo ko defee amoo ci benn bakkaar te itam la nga def baax na kon nañ xool degere sit xam ne du mbir mu garaaw ci côté bii nii suñ ne lii dañ koo sopp mooy loo xam ne kat dañ naan dañoo sopp kat nga defee ko nii nga xam ne loolu boo ko ni defee ngir sopp dañ ko sopp danga nga am tiyaaba ci def gi nga def li ñu lu ñu sib loo xam ne boo ko bàyyee ngir bàyyi gi ko sib boo ko bàyyee ngir sib gi ko sib da nga am tiyaaba ci bàyyi gi nga ko bàyyee ngir sib gi ko sib waaye boo ngee def koy benn bàkkaar fekku la ci te la nga def baax na kon joxe gi ci xaalis ak sib la te jëmmi sib googu laay wax ne buñ ko xoolee mën naa wëlbati ko sax doon lu ñu sopp mën naa bañetee yam ci doon lu ñu sib waaye mën naa jàll sax doon loo xam ne dañ koy sopp masalan euh, dara léeg-léeg danañ ko sib am lu am rek mu yéeg romb sib daal jàll ci araam léeg-léeg dara danañ ko sib am lu am rek sib gi di wàcc daal di bañ a doonati ak sib ngir yay gaar masalan boo doon julli rek tey di gëmm ngay julli ñuy taxaw di gëmm bañ a xool dañ naa la dañu dañ koo sib dañ naa la dañu bëgg nga xool waaye ñu ne la nag su fekkee lu araam day traversé nga nar koo gis moom maanaam gëmm nga léegi day nekk waajib ci yow da day romb sib dañu bëgg nga gëmm subaa ngir bañ koo gis kon ci makruh la taxawoon waaye bi nga naree gis lu araam jàll na nekk ci waajib ci yow ñu ne kon ngir bañ koo gis kon bu ñuy sib dara rek day am lu koy waral lu tax ñu ne nañ ko loola nag mën naa teggiku te bu teggikoo rek sib ga daal di dañ kon nag ñun nañ jàngat bu ne zakatul fitri sib nañ ko def ci xaalis nañ ko jàngat ndax amul yu dikk lu tax sib gi war a teggiku wala déet ñu xool loolu ma wax leen ne bi yonent bi digle lii ci ay jamonoom booba yii moo amoon yii la nit ñi soxla woon ngir dund yooyu jamono nit ñi jóguñu woon ngir yalwaan xaalis fuqaraaw yi amoon ci yooyu jamono booba boo leen joxoon xaalis bi tam yii la ñuy dem jëndiwaat ko ngir ngir dunde ko yooyu jamono bañ leen di jox lii lii moo nekkoon seen maslaha moo nekkoon intérêt bi ci ñoom moo ëppoon intérêt ci ñoom boobu boo yëkkati woon diinaar jox ko nit day dem ca marché bi ngir jënd yii nii ngir mën a lekk kon bu yonent bi nañ leen jox ñam ndax ñam lañ soxla woo kon bu dee nañ leen ko jox booba yoo loolu moo ëppoon njariñ ci ñoom booba boo leen joxoon xaalis tam ñu dem jënd jiwaat yi nii kon booba lii moo nekkoon seen njariñ lii moo nekkoon ak jàppandal ci ñoom ngir ñu jox leen ko maanaam yalwaan noonu ko imaam Sall leeral dafay lu am solo maanaam yalwaan nii di yalwaan xaalis léegi la xew rek bu njëkk nit ñu daan yalwaan liñ soxla wala ñu yalwaan am na ci loolu sax ba mu xewee yàggut bari na ñoo xam ne buñ naan yalwaan da ngay gis ñu takk ngise loo xam ne pour buñ leen joxee dugub ñu def ko ci wala buñ leen joxee ceeb ñu def ko ci nga xam ne ab dund lañu yalwaan buñ ñibbee seen kër buñ bëggee cere def ko buñ bëggee laax def ko buñ leen joxee ceeb buñ bëggee def leneen def ko nga xam ne buñ jógee di yalwaan sax seen xel li ñuy daj dund buñ leen jox mooy moom la seen xel di gën a daj ci kuy yëkkati xaalis jox leen te booba ñu leen jox ñu man caa dund léegi nag jamono tëdd na noo xam ne day mel ne nit ñëpp nga jox leen xaalis sax moo leen gënal jox leen dara ndax koo jox xaalis rek jox nga ko lépp ndax lam bëgg rek lay daal dem jënd ji ko lam bëgg rek lay jënd ji masalan ji mboolem ñuy jox zakatul fitri koo laajoon rek jox ko xaalis moo gënal jox ko ceeb wala dugub wala leneen ak leneen koo ci jox ceeb ba dugub ngeen xëyee suba ngeen dajee ca marché ba mu jaayaat ko ngir def ko xaalis ndax xaalis boobu ci lay mën a jënd ndawal ndax kenn ku ne xam na ne iidul fitiri nit ñëpp ndawal la ñuy itti woo def jamono sax egg na foo xam ne léegi daanaka nit ñi defatuñ ci ceeb ay at ci ginnaaw nit ñi daanañ togg ceeb ak ndawal waaye léegi daanaka sax téeméeri kër yoo dugg mën nga ne juróom-ñeent fukki yëpp ndawal rek la ñu togg ñi ko mënul ba mënuñ ko buñ defee ceeb itam danañ bëgg ndawal buñ ca boole kon zakatul fitiri koo ko mën a jox ab xaalis a ko gënal ndax xaalis boobee dana ci jënd ndawal bu ci soxlaat ceeb dem jënd ko bu deselee sax man caa def koddaay mu def ko ci wala leneen luñ ci ittewoo def kon suñ jamono bii moom laa chaque ci ne bu yéen bi doon dund itam du tere ñu def ko ci xaalis ndax moo amal njariñ ñin koy jox moom lañ gën a ittewoo ci liñ leen di jox te maas bi ko yonent bi yónnee yaman mu doon jëli ay asaka ci asaka yoo xam ne lu jëmoon ci wàllu mbay la ab dund bañ nga jëlee asaka ba di ko ko jox maas def na leen waa Madina jamono bi ay yére lañ gën a soxlawoo ci lii ngeen leen di jox fuqaraaw ya fa ne ña ngay lekk ña ngay naan ay yére yu koddaay yoon sol lañ gën a ittiwoo ci lii ngeen leen di jox waa dëkk ba ne ko ñun kay dañoo xamul ne loolu ma sañ nañ ko wala sañuñ waaye bu mënee nekk jàppale nañu mën na leen koo jox ci ganeen anam guddul di leen jox ab dund maas ne leen def leen noonu biñ ko defee bi mu ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koo rafetlu loolu mu def wax ko ci dara daf ko rafetlu ndax booba ñi yére yi mi leen indil moo leen ëppal njariñ ci mu indiloon leen lu ñuy lekk ndax ñi ngi lekk ñi ngi naan kon loolu ma te te jëmmi azaka moo gën a dëgër zakatul fitri ndax azaka texte la alquran ko indi muy farata innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin lii nag zakatul fitri yenente bi ko farataal ci ngir bis bi ñu mañ cee xàmmee ki am ak ki ñaar ñëpp mën a yëg teraangay bis bi léegi yii ñu tudd yëpp benn bu ci ndawal am amut te kenn ku ne xam na ne bi bisu korite kër gu nekk bu ko suñoon ndawal lay def kon koo ci jox lu dul loolu it day dem jaay ko ngir wut ndawal kon yëkkati xaalis jox leen mën nañoo wax ni sib gu fa nekkoon daanaka mën nañoo wax ne dañ na maanaam ndax lañ ci doon bañ ba ñu tax ñu di ko sibloo mën na caa bañ am ndax xaalis bii nga ko jox moo ko ëppal njariñ te même yow mi koy joxee sax moo la ëppal njariñ ndax yow da ngaa nar dem ci bitig ba jënd jënd ceeb ñëw di ko jox dem gi ngay dem di jënd ceeb ngir def ko ceeb rek coono la te boo ko defee ceeb ba jox ko ko mu mu juyoowaat yow jugaat muy wutiwaat marché ngir defaat ko xaalis xoolal loolu xoolal loolu kon loolu jamono ji mënatuñ koo tudde ak sit li wértu wóor daal mooy képp koo xam ne xaalis jàppandi na ko ngir mu génnee ko ci xaalis nga xam ne loolu moom moo ëpp njariñ ci niñ ci ñiñ koy jox koo jox xaalis rek lam bëgg la cee def maanaam tekkiwul ne bu jamono soppi ko dañuy soppi atte yi ci lu wuuteeg sunna si bi wala lu wuuteeg alquran déedéet jamono bu soppi ko wàllu tashrih li nga xam ne ajiwul ci wàllu ibaada jaamu yàlla dundinu nit ñi rek la loolu jamono daf koy soppi bu baax waaye saa bu ko jamono soppee buy soppi ko soppi ko day àndaat ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak alquran ndax lii nii boo ko nattalee ci noonu maha su doxale ci azaka yaman yooyu rek da gis ne kon war nañoo mën a yëkkati zakatul fitr def ko xaalis te sax sib googu duñ ko caw tudd kon jàpp naa ne ku ko mën a génnee ci xaalis moom moo gën noonu ko imam Bouchiri waxee rek bu Bouchiri Sall loolu mu wax ne maanaam même azaka bii ñu joxe ci dinaar yi ñu ko daan joxe kenn joxeetu ko ci asakay xaalis bañ koy digle ci or lañ ko daan génnee ak xaalis or bii ngay def ay lam ak i chaîne di ko takk dañ ko daan tëgg mu nekk ay pièces nga nga koy ŋàbb ne am jaay ma ci lañ daan génne azaka ndax da ndax dañoo toog ca loola rek ba nga xam ne léegi ku war a génne azaka da ngay dem jënd ji or génne ko ci déedéet xaalis bii nga yor ci ngay génne azaka te booba xaalis bii nga yor muy ay kayit amutoon sax waaye comme or a ngi fi ba léegi te or moo garanté xaalis moo tax ñu gis ne mën nañ koo génnee ci xaalis am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla maanaam ñàkkay ak teengal daal lañ xaw a nuru nag wax dëgg waaw am na ñoo loo xam ne ak teengal rek lañ koy mën a tudde am na ci ñoo xam ne nag ñoom ba léegi dañuy am ak maandu rek ci mbir yi xool niñ ko waxee rek ñoom ñu bàyyi ko noonu duñ ci jéem a soppi dara baa ñu yokk ci dara danañ jàng daal wax ni daal lii moom mooy li ñu wax daa ciy maandu waaye teewul nag nit ñi nga xam ne am nañ gis-gis ak settantal te muy dellu ci alquran ak sunna ñoom mbir yi danañ ko jël jànkat ko méngaliwaat kook sunna si yonente bi méngaliwaat kook alquran ba mën ci génn nit ñu àtt yoo xam ne danañ ko jëfandikoo te danañ ca daje bëgg-bëggu seen borom subhaanahu wa taala kon ci gàttal daal ci wàllu xaalis moom li ma ci daan wax rek laay wax mooy ku ko ci génnee moom kenn sikk sàkkul ni la nga def baax na suñ borom mën na la ko nangul waaye sib googu ñu ci tudd sax laa leen di wan ne ku jànkat ni jamono tëdd léegi xam ne sib googu sax buñ waxut ne sopp nañ ko it jinni ak sib moom mën nañ ko caa bañatee tudd ndax yooyu yëpp ay boroom xam-xam a ko wax rek lii itam ay boroom xam-xam rek ko wax nag kon ma jàll leeral kiñ koy jox kan la mooy koo xam ne amul lu ko doy ci bis boobu ki koy joxe mooy ki am lu ko doy ba desal ki ñu koy jox mooy ku amul lu ko doy zakatul fitri melut ne azaka bul defe ne bala nga koo génnee dañ naan da ngay am nangam xaalis door koo génnee déedéet bisu korite bi su fekkee safeer yi ngay def ci sa kër génnee nga ko ba mu des su desee lu loo war a génne muurum dañu bëgg nga génnee ko safeer yi bis bi daal boo ko génnee la nga desee su ci muurum koor xajee rek dañu bëgg génnee ko su ci xajul nag waru la ki nga xam ne nag moom bis bi amul sax lu mën a def ay frais ngir dund ci bis bi moom li war a dund ci bis bi sax amu ko matanu ko kooku mooy kiñ ko war a jox kooku na ko laaj kon kiñ koy jox mooy ku amul lu ko doy ci bis bi ki koy joxe mooy ku am lu ko doy ci bis bi te desal waaye nag ab jullit lay doon ab jullit lay doon teewut nag jëfandikul suñ boroom jaami yàlla yëpp la war waaye ñi duggagut ci lislaam moom dañ leen dul gàll teg tegi lislaam ndax duggagun ci biir lislaam waaye nag moo tax ñu ne ab jullit moo koy joxe ab jullit lañ koy joxe itam ab jullit a koy joxe ki koy joxe jullit lay doon as gor lay doon bu dee ab jaama ki ko moom ak koy génneel subaa nag moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam xale la moo xam mag la ndax léeg-léeg nit mën naa nekk xale ba noppi am xaalis ndax bàyyi mën naa faatu bàyyi ko alal kon dañ ko koy génneel kon ki koy génnee ab jullit lay doon as gor lay doon moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam la moo xam mag la ki koy jox itam ab lay doon boo xam ne moosir dafa ñàkk amul lu ko doy su nag moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam xale la moo xam mag la waaye su fekkee nag dafa ñàkk mën a boole ci di ab jaam nag lu tax ñu limaale ko ci ñañ koy jox ndax ab jaam moom du ko joxe duñ ko ko jox moom dafa féete rek ci moomeelu ki ko moom kon ci gàttal daal loolu mooy li nga xam ne neew nañ nañ ko leeral ci la aju ci zakatul fitri ñu ngi jéggulu ñëpp di dellu di sant suñu borom subhanahu wa taala di leen baalu àq te di leen baalo àq di ñaan suñu borom subhanahu wa taala boole ñu jéggal te boole ñu nangul suñu koor nangul ñu suñu jëf itam ya ko jiitu woon suñ mbokki jullit yi nga xam ne itam suñu borom def nañu jiitu ñu ngi ñaan suñu boroom ñoomit it doole lawal yërmandeem ak njëggalam ci ñoom ñëpp te xam ne ñun ñëpp rek ñu ngi ci woowu yoon ndox la boo xam ne duñu taxaw te duñu wàññiku kenn ku ne rek faaw mu xëy rek ci bis boo xam ne bisu dee doon ci moom daal di bokk ci way faatu ñi nga xam ne dootu ngeen limaale ci way dund te ñooñu ñit ba léegi ñu ngi des ci barsaq di aajo wa ay ñaan kon yàlla leen yàlla dolli yërmandeem ak njéggalam te saxal ñu ci ak njub xeetal ñu ci lu baax ñu di ko wax di ko jëf lañ ci mënu ñu di ko yéene tam ñu nangul lépp barke Cheikhul Khadim ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.